lan mooy ponk yi ak yan mooy sunna yi kon tey dana jaadu ñu wax li nga xam ne jullit mën na ko def ci biir kooram te du tax koor gi yàqu mooy lu ñu tuddee maa la yusidu saw du dul yàqu koor ndax lépp loo xam ne du yàqu koor jullit bi war na ko xam pour bu ko defee xam ne loolu mu def yàqul kooram naka noonu it li nga xam ne mooy yàqu koor it dinañ ci ñëwi mu mel ni li nga xam ne jullit bu ko defee ci biir kooram du tax koor gi yàqu bi ci jiitu buñ ko doon lim mooy alxataratu awil ixtikaal te mooy tuufaay wala tusngal loolu du yàqu koor kon nit mën nga woor ba pare tusngalu wala nga woor ba pare di tuufaayu waaye yooyu bu fekkee ne tuufaay bi wala tusngal bi yeggul ci sa biir bo bëli bëli gi su boobaa du tax sa koor yàqu waaye bu fekkee ne nag dafa yegg bi sa biir bëli gi boroom xam-xam ne nañ su boobaa dafay yàq kooram ñaareel bi mooy alxijaamatu te mooy gajju te mooy lu nekk ci nit ci deret ñu gajj ko ba deret boobu di génni loolu mënul yàq koor ñaar yooyu mooy yu njëkk yi ñetteel bi mooy isaa daxala xalqahu maa la yumkinu ixtiraasu anhu anhu bi dooni qasdin mooy lu am loo xam ne dafa dal ci sa bëli te teyuloo ko lu mel ni ngay dox ba mu yàgg benn weñ dugg ci biir sa sa gémmiñ continuer wala lu mel ni ngay dox poussière bi di jóg wala lu mel ni kuy liggéey ci ci maçon wala kuy bale wala koo xam ne dafa nekk ci boulangerie di liggéey loolu nga xam ne dafay génni ci sunguf si bu fekkee ne dafa dugg ci biiram te mënu koo moytu yooyu du tax kooram yàqu beneen bi ci des mooy isa daqala xalqahu duxaanu xatabin kooku ñuy togg matt ñoo ko moom bu fekkee ne yaa ngi toggee matt li nga xam ne mooy saxaar si dugg la su boobaa loolu dañu wax ni du tax sa koor gi yàqu beneen bi ci des mooy bu fekkee ne da ngaa fóon xeetu parfum wala lu mel ni laj kolong wala lu mel ni fleur xet gu neex googu dugg la su boobaa bu amee xet gu neexit it du yàq sa koor waaye sib nañ ko nag sib nañ ko ndax eh, mën na la yóbbu ci leneen waaye daal bu fekkee ne daal danga ko foon te yëgguloo ci eh, am nga ci parfum bi walla fleur la xet gi neex na sim nañ ko ci biir koor waaye taxul koor gi yàqu beneen bi ci des isa daxala bu buxuur yi bi duni din maanaam bu fekkee ne cuuraayu parfum euh, cuuraayu maanaam saxaaru cuuraay dalaa dugg waaye teyuloo ko wa kadalika raihatu taami bi duni taamudin naka noonu xetu xetu li nga xam ne mooy ñam dugg la te teyloo ko yooyu noonu yëpp su du yàq koor beneen bi ci des mooy li ñu tuddee piqûre piqûre bu fekkul mu nekk piqûre boo xam ne dafay remplacer lekk mel piqûre boo xam ne bu ñu la ko piqûree dangay yëg ni day dindi sa xiif wala day dindi sa mar yu mel noonu piqûre yooyu waaye bu fekkee ne piqûre boo xam ne da faj kese waaye du yëgg ci Euh, palaasu bu mu la mën a joxee looy lekk wala looy naan yu boobaa pikiir boobu itamit euh, benn dañ la koy pikiir ci sa yaram walla ci sa sa loxo wala fu mënti doon yooyu du lu yàq koor beneen bi ci des yoo xam ne yàqul koor maanaam jullit bi isa asba junuban te daa xëy nga mën naa am ci guddi gi da soxna si nga yeewu bi nga yeewu yaa ngi yeewu huit heures c'est-à-dire da nga biddanti kon su boobaa loolu dangay dem sangu rek continuer sa koor waaye du tax koor gi yàqu mën na itamit nga tëdd di nelaw bëccëgu weeru koor nga gént am man yu bu génn ci yow am na ñu jàpp ne loolu daa yàq koor waaye loolu du yàq koor gi ndax du loolu xam ne yaa ko tey kon su fekkee ne danga gént rek ci biir koor gi te danga doon nelaw boo yeewu dangay dem sangu waaye nag du tax koor gi yàqu beneen bi de al istihmaamu wa sabaxatu walaw daxala al maau al uzna al uzna illa an yajida taama al maai fi xalqihi beneen bi mooy sangu wala nga dem di fëy ci biir géej gi même bu fekkee ne ndox mi dafa dugg sa nopp yi waaye yëgu ci sa biir bëli du tax koor gi yàqu beneen bi ci des mooy bu fekkee ne da nga wëcc waaye teyuloo ko wàcc woo xam ne teyoo ko wàcc boo ko teyul dañu wax ne du yàq sa koor waaye bu fekkee ne yàq yàq sa koor beneen bi ci des alxuqnatu fi qubli rajuli te mooy góor boo xam ni dafa am luñ koy defal ci sond buñ koy defal walla loo xam ne dañ koy defal pour mu mu génn ci yaramam par exemple nga jël góor injection bi ñu koy defal ci sexe loolu du yàqu koor waaye bu fekkee ne jigéen la dañu wax ne dafa yàqu kooram beneen bi ci des mooy xakkul uzni bil awdi aw tanzifuha bil qutni bëccëgu koor sa nopp de xesen nga jël coton coton tige walla leneen nga di ko def pour nettuwaay sa nopp lañ wax ne loolu du tax sa koor gi yàqu wala it nga jël ndox moo xam ne peut loo xam ne garab la nga di ko def ca nopp pour faju feeg yeggu sa biir bëli rek du yàq sa koor lekk wala nga naan te fàtte ko bu fekkee ne kooru kooru gàtt nga la waaye am na ñu dem bay wax ne sax ki nga xam ne dafa fàtte lekk ci biir koor dañu wax ni kooku yàllaa ko lekk loo moo ko naanloo waaye bu dee ci mazhab imam Malik nee na da ngay fay benn fan waaye bu fekkee ci yeneen écoles yi ñoom dañu wax ne doo fay ndax ki juum lekk wala mu naan ne na kooku innama at'amahu wa asaqaahu yàllaa ko nandaloo yàllaa ko lekkuloo kon boobu it dañ wax ne du yàqu koor waaye nag li gën mooy boo boo lekkee wala nga wala nga naan te teew ko dangay ngay continuer waaye bu paasee nga fay benn fan danañ ci ñëw ci yi nga xam ne mooy yi yo dog koor te saa yoo dogee danga nga war a kafaara danañ ci ñëw beneen bi ci des mooy su fekkee ne dafa am lu desoon ci sa gémmiñ dal di da nga lekk mu am ñam yu des ci sa biir gémmiñ li ci des nga génnee ko waaye du ne danga ko génne ci biti sàqal mewaat ko cest à mooy loo xam ne ndesitu ñam yi ci biir gémmiñ gi loolu boo ko sàqan boo ko génnee wann ko dañu wax ne du tax sa sa sa kii yàqu sa julli sa sa koor yàqu waaye nag su fekkee ne danga koo génne saqaan mi ko su boobaa mën na yàq sa koor kon bu ko bu nekkee ne dafa nekk sa diggantey bëñ nga génnee ko rek wann ko loolu du sax sa koor yàqu beneen bi ci des mooy bu fekkee ne li ñu te atalazuz bil xubleti al mubasharati wal nazar wal fikri isa lam lam tasab lam tasabab haasi al ashya xuruj cheyin min al faaili wal mafaulu bihi cest nga am bànneex ci wàllu accolade wala ma c'est-à-dire fóon wala nga jonjoo ak sa jigéen bi wala nga di ko xool wala ngay xalaat xalaat yooyu yoo xam ne du sabab am li ñu tuddee luy génn ci yow benn yow mi koy def wala ki ñu koy def mel muy góor bi wala muy ko jigéen ki feeg amul lu génn ci moom fa in tasababa bi xurujil masdi fa alayhi alqadaa bu fekkee ne da koy def ba am benn liquide bu ndaw bu génn ci yow lu ñu tuddee almadhu su boobaa lu mel ni liquide prostatik bu génn ci yow nga xam ne bànneex bu ndaw la euh, wala luy lu mel ni euh, liquide blanc bu génn ci yow bokkul ak yu bu fekkee ne yu moo ci génnee moom fa alayhi alqada wal kafaara cest à yaa ngi fo mën na am da xool jigéen wala nga jonjoog moom wala nga di ko xelaat wala nga fóon ko boo almazyu liquide blanc génn ci yow dañu wax ni da ngay fay bés boobu waaye am nañu dem ba wax ne nag la ca génn ni mani yu la su booba dañu wax ne fa alayhi al qadaau wal kafaara su boobaa da ngay fay waaye da nga koy boole kafaara ñu ñëw lan mooy kafaara beneen bi ci des mooy ki nga xam ni dafa woor te bi mu wooree dafa dem ba ci digg ko bëccëg bi mu am gaañu gaañu bu ne ci moom deret ji di génn génni deret boobu di génni dañuy wax ne mënul tax kooram yàqu maanaam nàcc bu fekkee ne nàcc gi nag dafa dem bu nga xam ne dina la yóbbu ci nga ñàkk kàttan nga xam ne il faut nga dem dog pour jël garab su boobaa dangay ngay waaye bu paasee nga fay benn fan kon yii daal mooy yi nga xam ne mooy aju ci liy yàqu li nga xam ne du yàqu koor léegi nag bu ko defee ñu ñu ñu jàpp ko foofu nga xam ne di ñu ko mën a def ñaari yoon ndax boo ko doon xool war na mot 18 points 18 points yooyu bu ñu ko jëlee def ko 8 points 8 points defe naa ni dana mën a nekk ñaari ñaari jataay